ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldinoo ay maqaam yàllaaw mbokk internet yi ñoo ngi leen nuyu ah di leen ziar ak di leen ndokkeel kii ma jàkkaar loolu nag eh, réew mi yëpp a ngi koy gërëm du ma leen réew mi yëpp xam nañ ko waaye réew mi yëpp ngi koy gërëm muy Serigne Cheikh Ndiaye alquran Serigne Cheikh Ndiaye borom ismullahil azam Serigne Cheikh Ndiaye borom kurus gi ko xam-xam ko ci liggéey turu yàlla ci façon boo xam ni dama defe ni ñi ko mën ci réew mi ah du ma ni bari na de waaye xam naa ni secret mag ñi la yor macha allah tey nag ñu seet siwaat ko ci yeneen i mbir mooy waxtaan dëgg dëgg dëgg dëgg xam-xam bu ñu xuusee ci waxtaan bi sëriñ bi dina leen jox amu détail lan mooy turu yàlla ak sunguf yi nga xamante ne que mën nañ koo jëfandikoo mu ubbi suñuy mbir ci wàllu kaaraange ci wàllu wërsëg ak ci yeneen i mbir bi maa ngi lay nuyu di la ziar. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. buur maa ngi lay fay di la dalal di nuyu mbokk yi ñuy déglu di ñu suivre fii ci réew mi ak bitim réew di leen wax leen ñu ngi yëg topp gi ñu ñuy topp ak suivre gi ñu ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal ci loolu buur bisimilah. tey nag dañoo ñëw am mode détail wolof Njaay dafa ni weddi gis bokk ci sëñ dañ naan waxtaanee rek xam-xam tey nag sëñ bi fas yéene wane xam-xam mu leer sëñ bi tey dañu gis ay xawaatim yoo xam ni macha allah mbind mi rafet na lool waaye boole kook sëñ bi tiim yeneen i mbir yoo xam ne tey bëggoon nañ ci waxtaan am ci ay leeral. waaw buur xam-xam ci boppam. moo ëpp géej gi ndax yaatu. boo bëggee dégg mbirum yàlla mooy xam-xam. xam-xam nag toogul fenn ni ko olof tënkee ba ni xam-xam-xam-xam fa mujj mooy xamle mm-hmm. moo tax tey ma toog toogaayu boroom xam-xam buy xamle mm-hmm. ma fa yéene xamle xeeti xam-xam yoo xam ni nit ñi sax mii nuñu mucc mm-hmm. waaye ci laa gën a foor ci laa gën a aay muy lu jëm ci sunguf ak la ca aju ay reen ak la ca aju tegtal ak la ca ajo mm. muy xam-xam boo xam ni jihaat naa ci li ñuy wax jihaat jihaat naa ci juróom-ñaari at yu ma sëkk suñu borom def ma peeg ko ba maîtriser ko man cee génne dictation boo xam ne ku ci jaar rek la nga doon sàkku yàlla defal la ko man xeeti sunguf yi laa musta gis waaw xeeti sunguf yi gis nga sunguf bii sunguf la boo xam ne juróom ñaar fukki garab lañu boole. soixante-dix garab. waaw garab gu ci nekkit am tàgg na ca kaw. Mhm. garab yi ëpp jëmm ci àll bi sunguf si nit. Mhm. buñ ko catoon nu ko cat jàppee rek mën na koo dindi. buñ ko liggéeyee nu ko liggéey jàppee mën na koo dindi. waaye day ànd ak sirru yaasin yaasin bi moom la mag ñi doowee nen bi hmm. baytaxaal bi jëmmi kiñ def lañ ciy dugal ak liñ ko def képp koo xam dañ laa jàpp ci njabar ak lu aju ci loolu wala ñu sànni la kort kort ak lépp lu aju ci loolu benn fan ñaari fan mu dañ du ak ñetti fan ak nu garaawaay bi mën a demee sëñ. nu garaawaay bi garaawee benn fan ñaar fan mu ànd. kort nag ya ca a garaaw mooy yi nga xam ne ay taab la ñuy doon. Mhm. kii boo ko sangoo doon nelawaale taab gi ci guddi gi lay toj. est-ce yaa ngi dégg. Mhm. yaasin bi ci suq bidu lañ ko tëgg suq bidu nag mooy ummu Moussa suq bidu xayaanu bintu luway yu xaanidu mariyatu bintu luway marsiyatu jannatu masra mu amar moo xal baa u bintu raxbaab buur tey nañ gën a xuus ndax damaa indi lu bari mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. temps bi day gàtt yaa ngi dégg gab-gab bii ngay gis curaay la boo xam ni am na say ay sëriñ sax maa ko may gab-gab gab-gab gab-gab làkk junne la du wax doomu aadama moom waxuma la kër gu junne dëkk waaye koñ gu junne dëkk sax boo ko fa taale mu abal la moom curaay bi kese cuuraay bi kese bu ma la ko joxoon ngay wër ndakaaru kër gu àggul nga suy ko fa boo xëyee suba balaa mat ñeent fukki fan ak benn nga gis borom commencé fa tawaxaat ëpp sën boo ko fa defee mu tuxu cuuraay bii du cuuraayu xale ñetti réew laa xam garab yi ko am di fa sax mooy réew mu ñuy wax càdd réew mu ñuy wax Nigéria réew mu ñuy wax Cameroun bu dee garab yi koy am ñu ngi sax ci côté Agadez bu dee Nigeria kanu lay jógee bu dee Cameroun dalwaa amaatul feneen ci Afrique kooku mooy gab-gab buur bisimilah. est-ce man de sëñ bi xam nga dañ daan waxtaan rek verbalement waaye tey dañuy tey dañuy pratiquer. Mhm. sëñ bi ma gis ko mu gàdd lu mel ni ay paaka ak jees yi. waaw moom soloom ci diggante xaati mi lan la. kii képp koo xamante ni si nii dañ laa liggéey. wala képp koo xam ne dañoo wax ci ay caaxaan ba tëj la wala képp koo xam ne dañ laa xeex ba bëgg laa dugal ci kaso bii mm-hmm. moo xam ab jullit ko def moo xam ab yéefar a ko def wax ja moom buñ ci jotee la ñuy bind buñ ko bindee ci jaasi ji gas ko suul ko moom jeex na si fi ni ak nu coow li mën a toll nu coow li mën a toll ci àdduna alxuraan dafa ni wa jaxale kalimatullahi hiya al xam mm-hmm. kàddu yàlla rek mooy féete kaw wa kalimatul la siina kafaroo mhm. ak suuf la ci suuf rek la jëm laaya jooju buñ ko boolee ak ixlaas muy xul wala waxat liggéey ci liñ ci liggéey bind ko ci jaas ji ba suul ko loolu moom buur nu mën a demee leneen la wax kon defe naa ñi nekk diaspora bi ñu ngi koy dégg ñi nga xam ne am nañu mbokk moo xam ne ñu ngi ko tëj kaso ca Italie wala ñu tëj ko ci amerique te gars yi bari ci loolu waaye ba tey amaguñ solution mhm. kon jaas yi ji ndekete ndekete du jaas bi simple E li jaas yii la waaye lañ kay def moo dul xam-xam bu simple. Hmm. dégg nga wax bi. dégg naa wax ci. waaw kii képp koo xamante ni si nii da am problème ci kéet moo xam kéet bi nu mu mën a demee wax ju jëm tribunal ak yu mu mën a doon buñ ci jëflanteeg moom ña ngi cay ña doon jëflanteel ca loola. Hmm. na xam ne ñàkk nañ ndax wax ba tëj la mënuñu ko. bu dee kuy ñaan kéet bëgg ko am. waaw bu dee kuy ñaan ki bëgg koo am moom am na beneen xam-xamam ci kanam tuuti nañ ci agsi waaye kii ci layoo moom la gën a ay waaw kii moom kuy layoo ak kuy xëccoo ak ku ñu xëccoo kuñ bëgg a génn si kër ku sa jabar wan ginnaaw bëgg a ku sa jëkkër wan ginnaaw bëgg a dem ak koo xam dañ laa dig nunguñ la koo jox ak kii ci yooyu lay dox buur kii ci yooyu lay dox sëñ Cheikh ba tey dañuy doxal sunguf si nga xam ni sunguf su weex la lañ koy wax waaw ano bii pour ngóora la bii pour ngóora la waaw bii boo déggee gars yi naan teg motoor teggi motoor mhm. mooy lii gis nga lii guddi gi nga koy naan nga yëg ni yow sa kàttan gi dañoon ci yow mi ngi dellu si koy jël benn yoon ñaari walla wala saa booy sëy da koy jël boole ko ak ndox mu tàng ak meew di ko naan mhm. kii buur faj naa ci lu ëpp trois cent treize personnes fii ci réew mi moom sunguf si mooy sunguf si sungufu ngóora la boo judduwaalewul ngóora noo mën a amee jafe-jafe bu ma la ko joxee traitement bi boo ko jëfandikoo pare ci. traitement bi ñaari fan lay toll. traitement bi juróom-ñaari fan du ko weesu. juróom-ñaari fan soxlootoo garab gi bu la neexee tegal na la. juróom-ñaari fan lépp lu nekkoon ci yow di jàngoro moo xam ju nëbbu la ak ju feeñ la boo jëfandikoo lii pare nga ci. waaye sëñ bi xam nga ngóora dina am ñoo xam ne tamit rab moo leen koy def léeg waaw rab damaa mën a jëflanteeg moom ndax yàlla dama mhm. cee dimbali. ma am ci xam ci man ci. ñett yëpp laa boole. Mhm. am ci rab yi xam rab man ci rab yi dara. Mhm. ak ki jinne waaw ak ki jinne <laughs> ndax man xamal nga ma ci jinne loo xam ne ba tey dafa des sama bopp ba saa yu ma la séenee sama xel uniquement ci loolu lay dem. waaw junne sax dinañ ci gën a waxtaan. Mhm. ndax yor naa yeneen yoo xam ni bëgg naa ko jàll ca télévision bi ngir yàlla ndax fi ne dama bëgg. ñi nga xam ni dañ leen daan nax wala ñi nga xam ni dañ daan ñaanlu te mënuñoo am résultat mu dimbal leen ngir yàlla ndax xam naa ne li ma yor nii su ma ko dimbalewul jaam ña dama ko fi teg muy tege rek. Mhm. na ñëpp ñoo ñu bokk buur amul benn problème. man la saa su ne man la sëñ bi dimbalil jaam ñi ndax xam naa ni lii bàyyiwul maanaam lii bàyyiwul la ci kaw suuf sunu boroom suturaal na la. sant yàlla buur. <laughs> Hmm. xeeti xam-xam yi am naa ci maîtriser naa ci lu jege junni xam-xam euh, daw ma jóg sax ñu bari daan wax ni sëñ bi moom lu ko tax a toog. parce que mhm. bëri mooy soxla. sëñ bi du feeñ du wax mel ni mbir yi intéressé wu ko te toog ci loo xam ne man xam naa ci li nga toog man buur. waaw li ma toog moom ma ngi lay giñal ci yàlla Sénégal ñi ko ci attan bëriwul. Mhm. mag ak ndaw nag laa ci yemale ñi attan li ma toog bariwul ci nit ñi waaye mbirum yàlla rek. ndax wa annal quwata lillahi kàttan dafa nekk ci loxol suñu borom buur te ku yàlla kàttanal dootoo soxla kàttanu keneen mbir yi noonu la demee sëñ bi lii ci layu bii moom hmm. xanaa du cuuraay de lii du cuuraay ay xas la xasi la sëñ bi ak ci li muy dox ay xasi garab la du ñun nag duñ liggéey ci benn garab kese dañuy boole kii sirru kun lañ koy wax sirru kun sirru kun sirru kun sirru kun kun surtout boo xam ne loo ko loo mu ne ca loola kii loolu daal màgget gu ni kororooj bëgg a delluwaat gone loolu mu amul kenn ko man moo tax yonent bi ni bàyyi leen màgget màgget yi bàyyi leen di ndaw ndawul ñuulal géeg yooyu yëpp teew leen màgget waaye li dañoo wax ne luy lu dul feebaru màgget mën na ko dindi ci nit ak jàngoro bu mu mën a doon ak jàngoro bu mu mën a doon xale bu tuuti bii door a juddu ba ci mag mi lépp lu ko dal lu mu mën a doon te nit teg ko ko moo xam rab teg ko ko moo xam muy pexe mhm. mën na koo dindi sëñ bi koo amoon tey di ko jëfandiku noo koy jëfandiku waaw kii nag day première matière bi mhm. dañ koy boole wal ko dëbb ko def ko sunguf ko moromam yi mhm. mais comme première matière bi mën nañ ma indil tey nii moo tax ma boole ko tegale ko ci biir pour nga gisaale ko xam ko waaw maam muy lu ama ama am solo Serigne Cheikh Ndiaye alquran nee naa la dañ doon waxtaan ngeen di dégg waaye tey daree ni wan dégg ngeen ko ci biir waxam li mu toog macha allah ci xeeti xam-xam yu mën a dimbali jaam yi ëpp na junni te yéene mooy dimbali jaam ñi ndax xam na ni que da ko fiy teg rek mu tegee loolu nag dëgg-dëgg li citoyenneté sëñ bi lëla deey dafa mel ni ay xaaxaam laa ko def yëf wala déedéet sori na loolu de légat gu ndaw gi buur mhm. Afrique de l'Ouest gii ñu dëkkee ñun ñëpp mën nañoo bool dimbali. leget gi ak li ci biir. waaw. ci naka sëñ bi. kii ngay gis boo gisee ma koy bañ laal ci pou bi mbaam lañ koy liggéeyee. neefaree mbaam. waaw mbaam sëf. mbaam ak lu jóge ci tan hmm. ak lu jóge ci jaan ak lu jóge ci gaynde sëñ bi loolu loolu loolu dina lu jóge ci tan lu jóge ci jaan ak lu jóge ci gaynde gis nga kii ma cofoon def fii léegi nga indi kuy say mu tëdd nelaw ci saa si du mat sax une minute kuy say kuy say di daanu ay crise ak ay jëf nu mu mën a sayee boo cofoon ci curaayu seytaane bii teg ko fii léegi mu ne teg sëñ bi ñooñu di yuuxoo di tudd ay tur nag naan jinne ji day wax ak jinne jaa ngi yuuxoo ko def yëpp waaw yooyu ay mbir la yoo xam ne détail la bëgguma ci sori amul mhm. solo mhm. yi ma yor ni ay xaqi xalaa dëggu wér xam nga mbaam ngonk mhm. ah mbaam ngonk gannaawam la jël boole koo tàgg moo xam ni tan da ca jur juraat ca ba jug ñu yëkkati fa mu daan teg ak la mu fa bàyyi woon mu koy gardeel moom ñu boole ko tëgg ci liggéey bi dina am sax kuraay moom ngay gis muy weex ni kuraay li waaw moo nekk noonu ca kaw kuraay secret la moo tax ndax dafa am boo secret buñ ciy dugal benn seru la te il faut ñu nandal ko ci kuraay bi moo tax ñu ko ciy allahu akbar te yàlla sëñu man lu tax nga taamu ci tan gaynde mbaam jaan waaw yonent yàlla Suleymaan bi ko yàlla dénkee nguur gi ni ko tànnal ci mala yi koo gën a wóolu dénk ko sa yenn mbir yi ci ñoom tan la jiital ci mala yi hmm. mbaam nag boroom xam-xam yi ko ñàkk bariwul xam nga Sénégal dañ dul wax moo tax nit ñi duñ xam hmm. bari na boroom kilifa yoo gis fii ci réew mi am nañ fasu naaru góor am nañ xaru wenn melo am nañ mbaam am nañ nag am nañ yu baree baree baree baree bëri hmm. ndax yooyu yàlla boolewulee nag nit ñi noonu rek mm-hmm. ay secret da cay aju yaa ngi dégg wax bi mm-hmm. waaye yu ñu boole pour liggéey lii yooyu rek ñoo mën a liggéey lii li wax bi boor bu baax waaw su ko defee ñaan yàlla dafa am waaye ku xam nañu ñaane yàlla moo bariwul mm-hmm. ak naka la ñuy ñaane yàlla waaw ñaan gu nangu ndax doomaadama dafa am yoo xam ni faw mu àgg ci suñ boroom door koo xam te fii ak génn goo bi ba dugg ci biir kiiraay yi génn xàmmee lan mooy nit xàmmee lan mooy jinne xàmmee lan mooy malaayika xàmmee lan mooy leeru yàlla bari na looy wax bu yowoon nit ñi dégg ko rek te dem yaa ngi dégg bu baax waaw xam-xam lu ñuy jàng la ba pare maîtriser ko. ndax hmm. na li ci gën a sensible mooy xam-xam. kon bëgg a ñaan yàlla rek taxul yàlla nangul la de. bëgg a ñaan yàlla man a ñaan yàlla sax taxul nga ñaan ñaan ko amul ndigal du ko def. Hmm. da nga wax bi nit dafa am ay mbir. buur nit simplul. déedéet. nit du lu ndaw. sànq de wax nañu ma tudd ay jinne nga ne ma yàlla leen ëpp personnalité. waaw. ndax nit nga doomu aadama. lu ne ci moom ci xëy bu rek bu góorgóorlu woon am num ci xam hmm. ba ci bàmmeel xanaa xamoon doomu aadama ci bàmmeel la jóge lu la téere yi wax rek jaar nga ci doomu aadama bu nekkee ci biiru yaayam ba génn amul lum ca mën a nettali waaye luñ la wax rek yi nga raakoo liñ lay wax sax ne la biir bar baat sax dina ko ciy branche leen sa biiru yaay branche leeral na raakool xéwal gépp la fekk. wallaahi. loolu nag meneen mbir la mu ñu war a leeral waaye nit ku ko munta jële foofu ba dugal ko ci biir bàmmeel xam li xew ci moom xam ni suñ borom bindul benn doomu aadama ngir am po doo mën a sore ci moom. sëñ bi est-ce que boo continué wax ñu ci bari duñu noppi wala sa wax ji est-ce que nee leen arrangé. waaw xam ndax yaa ngi commencé feeñal. yi ñu daan nasaxal ak yi ñu daan yombal da nga ko commencé leeral ci pédagogie bu tegu ci yoon ba noppi jege. waaw xam nga doomu aadama yi jamono bu ne ak ñi yàlla dénk xam nga ñan ñoo tardé. Hmm. ñii topp ñoo xam ne fekkewuñ sax seenu seenu faatu ba ñuy faatu nañ bu yàgg nga topp ca ñoom parce lépp nga bëgg koo bàyyeek ñoom loolu du dem. Hmm. xam-xam jamono bi ngay dund ña ko xam la la yàlla booleel. xam-xami ñaan yi damaa bokk ci ñi ko gën a maîtriser ci réew mi man nag du ma maa man kenn ndax du ma bàkku wa anal quwata lillahi kattan ci loxol yàlla ne waaye nag kattanal na ma te xam naa ne li ma yenu diis na waaw bari na lu doomu aadama di ñaanlu di ko sàkku ci ëpp sëriñ ni mënu ko su ñëwee ma dimbali ko ci ba mu joxe loxo su ñëwee ma dimbali ko ci ba mu joxe loxo sëñ bi ñu doxal tuuti dafa mel ni lu ñu des ci waxtu bariwul sëñ bi lee cuuraayu liban la de. bii. war lu cuuraayu liban. ci dafa raxaale cuuraayu waaye du cuuraayu liban lii ay xeer la. ay xeer la. waaw. waaw ay xeer la de. waaw xeer yi ci janji gabon yi lay jóge janji junne dëkke kii nag xaalis ko tax a jóg. koom-koom. koom-koom. waaye duñ ko jox kiy ñaanlu di tax waaw kiy ñaan dafa am sangat buñ koy liggéeyal jox ko ko mu koy sangoo ñu am luñ koy werdal buñ ko koy werdal nag lu ñuy jëfandikoo lii di ko taal yow di ko suuroo yow mi koy wér di ko suuroo pour woo ci ay raw xanam suñu accès rek bal ba tàkk kon li nga ko li ko doon jox moom pour mu sangoo ko rek du doy maanaam moom day ne fële yewet nga ne fii ñaan des fois ñett a koy seq. Hmm. yow mi ñaan ak ki lay protéger ci biti ak ki ngay ñaanal ñëpp ñu participer dafa am loo xam ni boo ko dee xëcc day diis. Hmm. faw nga am ñu la ko jukkile gis nga goj boo ko sànnee ci baag ci teen takk ci baag baag ba rëy loolu war a indi lu bari ñu la koy xëcc le wàññiwuñ dara. Hmm. waaye buñ la bàyyee mën nga ko xëcc waaye day yàgg. dafa yenn xeeti ñaan yoo xam ne day am participation man des fois may ñaanal nit di ñaan waat ci ñaan gi may ñaanal nit moo tax mbir yombul mm-hmm. ndax dina am xadra yoo xam ni ak bagage yoo xam ni ak doomu yoo xam ne li ci seen bopp ak seeni garde corps yi leen yàlla booleel ci boppam muy jundun ilaah yi dañoo am doole kon sëñ bi ñaan gi du ñaanu commande waaw non kii moom moom du mbiru xale de mm-hmm. moom sangat yi ñooyam yi duñ mbiru xale sangal yi dinaa danaa ci ñëw danaa ci ñëw ndax man damaa gis xeeti cangat yoo xam ni yii ñoo bokk melo yële bokk nu melo. waaw. waaw te bu ci nekk jàpp naa ni am na ci lu muy dox. waaw yenn yi day alquran yi kese. yu raxul dara. yu raxul dara. Hmm. yi sungu fi kese yu raxul dara. lu waral teqale gi. waaw dafa teq dafa dafa mu mu teqalikoo nag ndax mm. adduna moom lépp àndul ku ne mm. da am foo jëm rek mm. ba nga déggee gauche ak droite nga xam ni lenn lu ne am na nu muy demee mm-hmm. sangat sax heure yi ñu koy sanga warta bokk am na yoo xam ne gudd rek nga koy laal am yoo xam suba rek nga koy laal am yoo xam ne yoor yoor am yoo xam ne takku mais sëñ bi sëriñ ci joxe cangat mais duñu ko waxee noonu nit ki day ñëw wax la soxla rek nga bind benn xaatim jox ko boole ko ne ko boo lebee ñoom ñaar sangat maanaam sangul juróom-ñaari fan point duñ la wax heure duñ la wax. nit ñi bokkuñu ay ñaan yuñ leen di ñaanal nekkul ni genn ñaan ngay yor di ci ñaanal ñëpp kenn ku nekk daa am luñ ko war a ñaanal buur. lu waral loolu sëñ. waaw ndax kenn ku nekk tur. bu ma lay woo buur laa lay woo. bu ma lay woo mm. Seydina Ousmane Ousmane laa koy bu ma ko woowee kan kan laa koy alxuraan noonu la mel yàlla sax tur wu nekk ak na nga ko cay woowee. Hmm. yaa wahaabu yaa latif yaa rahman yaa nangam yaa nangam waaw nit maa ngi dégg xam-xam ba wuute amee ab tubaab ñëw xonq cur am naar ñëw xaa xaw a xeereer mhm. nit olof yi ñëw ñuul kukk bokkuñu lu ñuy làkk boobu leen yàlla wuutale alxuraan sax saar yi bokkuñu téeméer fukk ak ñeent la waaye benn bu nekk turam da wax bi surtout nam li Ankabuur Baqara moo tax nit boo ko xamee boo ko dee ñaanal mel ni man fi ne kenn ku nekk ci nit ñi ak sa programme ñi may ñaanal ñëpp kenn bokku ci moom programme moroomam koo tijji buntam aay yi nga koy ñaanalee day ñëw waxtu yi nga koy ñaanalee day ñëw ay raw rawxaanam sax du bokk ak rawaani moroomam. sëñ bi man rawxaan laa mënul comprendre ba tey. rawxaan ak leer la. buy participer ci doomu aadama comme ni ruux di participer ci doomu aadama comme ni insaan yi di participer ci doomu aadama comme ni yaram di participer ci doomu aadama. kon rawxaan du jinne du jëmm. rawxaan mën nañ koo jëmmal junne mën nañ koo jëmmal malaayika mën nañ koo jëmmal nit mën nañ koo jëmmal. la ilaha illallah. <laughs> kon nit ki rawxaanam sëñ bi mën na koo liggéey. ba xabtal ko ci dara wala xeex la ko ci dara wala yónni ko ci dara waaw rawxaan xuddaam dañ leen di yónni ñu dem bu duggee ñaan kari naan rawxaan alxajal asaxata asaxata fikum yooyoo tax leen sant leen gërëm ndax ay soldaar lañ yoo xam ni boo soxlaa lu gaaw loo xam ni moo gën a gaaw xel rawxaan a gën a gaaw xel te fi ne xel dañoo wax ni dix milliards de kilomètres sa xel mën na ko daw ci benn cars fii ak États-Unis bu la neexee ngalaat fa léegi ñetti kilomètres la raw xaan na gën a gaaw xel moo tax ñu koy jëfandikoo waaye nag ku amul xoddatu ilaahi yëpp mënoo ko mm-hmm. danga bóor la sëñ bi dafa mel ni que ñoo ngi waaj a jeexal mm-hmm. ñu découvrir fi tey yu bare bari waaye sëñ mi ñaari jaasi yu wuute nga jaasi ju mag laaj yu ju ndaw waaw ñett yi li leen wuute la mooy benn bu nekk ak la moroomam di def bokkul waaw lii paaka la. kii paaka rek la. fii am na lu ma ciy bind rey ci mala. sarxe ko bal ba tàkk na. aju joo am day faju ci saasi kii bii nee naa la bu ma neexoon kaso bi ñu ci tëdd ñépp génn kii moom nee naa la ku ñu bëgg a napp wala ku ñu bëgg laa nax wala ñu bëgg laa. effacé effacé facilement mën na la ciy dimbali lii jaasi. waa sëñ bi ni nga ko yombalee facilement wala xam-xam moo neex rek. waaw xam-xam géej la te man alquran ci lay yëngu. moo tax ñu naan ko Serigne Cheikh Ndiaye alquran. waaw alquran boo demee booy booy wuti. du yomb waaye boo amee rek mu mu yomb. te sëñ bi xam-xam da koo jaral gëstu gi sàkku gi topp gi dund gi ba sunu borom soog ko ne ko bismillah. fanweeri réew ak ñaar laa dem maa ngi dégg ñu bari wax wax boobu. man day waxoo ma ko de nga baal ma de billaahi wallaahi watallaahi waxloo ma ko ñaankatu yàlla moo ma ko wax. ne ma boo dee tànn ab sëriñ bu def lu ëpp fanweeri réew ak nangam sëriñ Cheikh Ndiaye alquran rek laa ci xam ndax bari na réew yu ma dem di sàkk xam-xam fekk ko fa barke yonent yàlla Muhammad. gis nga man buur laata maa jóge ci réew mi. tërbiyewu naa baatub laa ilaha illallah ba am ci dictation boo xamante ne si ni mën naa cee dimbali ku ma neex ndax gëstu ak yéeg mi ngi yam ci nga am fathul akbar nga ubbeeku ci ubbeeku bu màgg gi nga xamante ni moom la ñuy wax màggook yàlla gi te man yàlla dama dimbali ci ismilal azam ni ñuy yéegee xam naa ko ni ñuy wàccee xam naa ko ni ñuy yéegalee nit xam naa ko ni ñuy wàcc nit xam naa ko ci azam ci azam moom laa génne waale moo tax lu ma mos sàkku ci nit ma jaaralee bu ma jaaxale ma jaare ko ci yàlla yàlla yombalal ma li xam jox ma xam-xam yu bari laa yor yu wuute hmm. nee naa la xeeti xam-xam yi yeen ci naa ci ci sama kaggo yi ngay gis lu ëpp junni xam-xam loolu doo xam-xami caaxaan hmm. moo tax ñaan yàlla yàlla moo ma ko man loo hmm. ragaluma fu ne defee naa ko fa gana dama doon toog colonel yi ni ma lii dañ la ko jox xaalis baa ngi nii waaye lii boo ko munta assuré ñun bu ñu fi ñëwaat bal la ñuy indaale mm. ma jël ko assuré ko bene dama faa am kër gu may ñaanee comme kër gi Côte d'Ivoire dama faa ñaan bañ may ma soxna buur wallahi waaw loolu moom man buur a ko gis preuve à l'appui waaw man du ma wax lu ma leeru waaw soxna ci biir xam nga mm. ñaan yàlla yoon la mm. soo ci jaar rek am li nga bëgg waaye nag da nga yàgg. Mhm. na nga koo tarbiyo na nga muñ na nga xaar. fukki at ak juróom-ñaar def naa ko te feeñu ma. Mhm. waaye nag jamono ñëw na. Mhm. baag bu feesee dafay tuuru seen Cheikh Ndiaye Alquran dimbali jaamu yàlla yi rek moo ko tax a jóg man ak moom def nañ fi yeneen i édition nee naa ko man ak yow épisode par épisode la ndax macha allah li mu yor géej la saa bu ñu toggee moom jàngat leneen lu bees ci xam-xam waaye li benn lu neex ci moom mooy xam-xam dafa ànd ak yeete mooy dalay wax loo xam ne wóor la keneen ku la tegal leneen lu loolu dootoo ko faale sëñ bi mën a yow defe naa ni suñu waxtu tàggoo mu tàggoo burul tàggu ndax war nañu ànd laataa ngay tukki yaa ngi waajal benn tukki loolu it danañ ci danañ ci xam naa mosal gaa yi tuuti. waaw tukki bi Dubaay lay doon. farata la nag ndax nit boo ko fekkee yorul dara nga di ko ñaanal ba mu doon milliardaire mujj buy dem ci ay moroomam yow lay woo di la tiitaroo ah kooku am nga fu ngeen jaar moo tax nañ def Dubaï lu war a ñaari semaine pour ànd fa ak suñu nawle boo xam ne moo ñu fa yóbbu ci ay xaritam su ko defee relation yi ma fa amit ñoom ñëpp ña may xaar ay vers la 14 dinañ dem Dubaï def fa ñaari semaine ñibbi si waat fii ci réew mi. te bu ñibbee màggee war nañoo ànd Gambie. ànd Guinée ànd Casamance dugg ci àll yi wane yenn secret yi gars xam ne nag pom du maramu new sa ceeb lay tàggoo. waaw xam naa ni daal li nit ñi di wax àq xam muy dëgg. Hmm. dinaa ko wane ci réew mi te itam xam-xam bi dinaa ci génne yoonu dëgg wi. Hmm. kon ku dëgg rek booy ba nga wàcc yoon te xam ne ñoo ngi ñëw boobu. jërëjëf. jazakumullahu ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur yàlla dolli ay maqaama yàlla bismi ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur buru yàlla dolli noo ay maqaama yàlla Bienvenue sur Salam Vision